mbokk internetu wasaare news ak lii Dakar midi comme ni ñu koy defee depuis début kan bi euh, ñu ngi woon sa wakaam ci quart de finale bi contre Guinée équatoriale Sénégal def fa match am solo tey ñu ngi fii ci euh, université Anta Diop université Anta Diop doo waxee xam ne étudiants yi dañoo engagé wu en matière de sport Sénégal tey di football ak kii ak Burkina Faso ñu mun nekk match bu am bëri tension match bu bëri suspense euh, ñu naan leen kaa ak fii ba match bi di jeex avant pendant ak après ci wasaare ak lii di Dakar midi. waaye na gaaw bokk attention na gaaw presse bi nañ toog benn place bu gars yi mën a gis presse bi à toute l'équipe de l'animation culturelle et sport. ah boo gisee mas ah mat bi grand ñaan yàlla defal ñu ndam rek waaw. tey lan nga gis. tey a ah, grand ñëw si boote rek ñaan yàlla rek taw ko ndam moom ci loxo yàlla ne quoi ñaan yàlla mooy ñu ndam rek ndam bu set bii quoi. gëm nga ni Sénégal day doo Burkina Faso. bien sûr que oui gëm naa ne Sénégal mun na gañe kay. waaw bien sûr. am nga confiance. am naa confiance bu baax am nga confiance ci Aliou Cissé. waaw am naa confiance ci Aliou kay. waaw. li mu a teg dina dina baax. ah. mu nar a teg tey dina baax. dégguma. tey li mu naa teg onze tibb yi. waaw dégguma lu ma. onze tibb yi tey onze tibb yi wala fubal. tey noonu la noo ko gisee. onze tibb yi ah waaw comme que Aliou Cissé moom moo leen entraîné donc nañ nañ am si moom confiance rek waaw di ñaan yàlla defal ñu jàmm daal defal ñu ndam sedd guy. jaajëf. waaw maa ngi lay ziar ni ko. El Hadj Mamadou Dieng. tey noo gisee match bi. waaw yaakaar yaakaar rek lañu indaale yaakaar rek. ñëw dóor. ñëw gagné fexe gagné match bi rek yaakaar rek lañ am. dañ am nga confiance équipe am nga confiance naa pleine confiance je pense que tamit étudiants yëpp am nañ confiance tamit. waaw. waaw am naa confiance bu baax ndaxte lu mu def keroog euh, lu mu def match bi passé ko am nañu confiance baax si moom waaw. escore escore. escore. score 2 ah 2-0. non 2-0 non 2 soxna si ñu ngi lay ziar. delloo ziar. tey noo gisee mas. bon. ñoo toogandoo. comme ni nga gisee rek aussi toujours aussi confiant. donc ah, vraiment nag très confiant par rapport ak par rapport ak ci li ñu joxe la mat mat passé bi donc mën naa ci am benn confiance boo xam ne vraiment gëm naa ne danañ gagné match bi incha allah. waaw je suis très confiant très même. Aliou Cissé. waaw bon si Aliou Cissé c'est l'engagement des joueurs leur hargne euh, sur le plan défensif bi ma doon xalaat surtout au niveau du de terrain donc gëm naa ni bon ak expérience bi am ci match bee passé gëm naa ni ak Burkina wo mu nekk équipe boo xam ne kenn mënu koo xeeb tamit donc équipe boo xam ne am na condition physique am na koof du bàyyi mais man gëm naa nos lions quoi parce que nous sommes des benn de deux. seen ma boobu. gaa maa ñu naan baax. waa mais. non rek maa waaw waaw waaw pour pour dire vrai de trac quoi. bon je préfère attendre la mi-temps pour wax quoi. ah. waaw gis naa ne dañuy gagné mais bon xam nga demi-finale bi dafa dafa xaw a metti quoi. parce que ñaari équipe yoo xamante ne ñoo xaw a niroo palmarès ñaari équipe yu mos a jël coupe ñooy daje lu mu jaral Sénégal da koy jaral Burkinabé yi mais xam naa ne j'ose espérer que track bi ma am joueurs yi amuñ ko daal mais man moom xaw naa kii tuuti quoi non pas perdre espoir mais j'ai un peu de trac avant match bi démarré il faut que match bi démarré nga a a kii tuuti quoi waaw nga door a soulagé wu quoi waaw mais day fekk day baax sax mi bi day fekk nu am un waaw incha allah noonu lay demee. sant yàlla alhamdulilah. noo gisee match. bon je pense que match bu neex la nar a doon parce que tollatuñu fu ñuy waxee euh, statut équipe. parce que c'est une demi-finale c'est presque une finale. donc match bu bëri enjeu engagement la nar doon parce que match à élimination la donc je pense que match bu neex la nar doon ñaari équipe yëpp. Elles ont prouvé pourquoi elles sont là aujourd'hui. Donc je pense qu'on va assister à un très bon match. Soit que Sénégal gagne. yaakaar nga ne Sénégal tey dina dina mën a dóor kii Burkina Faso. am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax. je pense que fi ñu toll Sénégal amul benn équipe bu muy bu muy calculer. donc euh, tey yeneen équipe yi ñoo war ñëw am benn plan contre le Sénégal mais le Sénégal il vient dérouler son jeu tout simplement pour passer sur l'adversaire xanaa yeneen équipe yi ñoo war a posé wu comment passer sur le Sénégal. score score yàlla moo xam waaw mais je souhaite que le Sénégal gagne. Pape Laye Touré. maa ngi leen di fay. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw si ñëw bokk ak partager ambiance bi avec nos camarades étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ñëw bokk ak ñoom plaisir bi parce que depuis début CAN bi ba léegi on est là avec eux en de suivre euh, la Coupe d'Afrique euh, des Nations donc euh, de supporter aussi également suñu équipe nationale muy le Sénégal. tey nan waaw comme d'habitude ah gis nañ Sénégal mi ngi progressé mi ngi avancé soo xoolee début beeg léegi y une grande différence. donc euh, football euh, dafa nekk loo xamante ni lu am solo la parce que tey su dee politique am na ñoo xamante ne am na fu ñu far ñuy far fa ca su dee làmb am na ñoo xamante ne mbër mi lañ faral ñuy faral feneen mais équipe nationale kese moo mën a regrouper tout le monde c'est-à-dire tous les sénégalais autour de l'essentiel essentiel bi mooy ñu mànkoo wuti ndam li te loolu la ñuy ñaan ñu ngi ñaan yàlla Sénégal gagné Burkina Faso mën a jàll ci final bi gagné final bi coupe bi ñëw Sénégal ñëw fii ci université Cheikh Anta Diop da Dakar et dans toutes les autres universités aussi. la nga gis ban score nga gis. waaw peu importe ah nañu gagné rek mais su nekkoon 3-1 3-0 2-0 xam naa ne du foofu en tout cas yàlla baax na. donc mu nekk lii dafay tax dafay gën a rataxal suñuy diggante dina tax ñu xamante wul woon xamante donc autorité tamit ñu ñëw teew fii. day tax tamit mit bu am diggante autorité yeeg étudiants yi mu mën a dañ donc loolu je pense que c'est une fierté pour ñun ñëpp ñu teew fi ànd ak ñun ñëpp amul góor amul jigéen on est tous là en train de supporter nos lions yéen tamit seen teewaay fii bu baax a baax jërëjëf jaajëf. gars bi ñu ngi lay ziar baax a baax kay. naka mu baax bon sant borom bi. naka politique. waaw ça va on est là. waaw ku la xam ne ma. Euh, bon waaw instant yii moom naa quoi. gagné wu ñu leen. pour lan noonu. ma ne yi. ah non mais élection yi sunu élection la woon ñoo gagné. on a gagné on a waaw effectivement waaw effectivement xam nga boo fekkee initiative yu mel nii organisée par euh, par le COUD à travers le DAX je pense que pour permettre étudiants yi ñu mën a suivre massif bi euh, paisiblement kon lu amee ni en tant que étudiant représentant étudiant je pense que yoon la ñu ñëw teew fii nii match bi de la plus belle des manières et loolu tamit dañ koy rafetlu du début à la fin parce que nekkul tamit def depuis kan bi commencé jusqu'à aujourd'hui ñu ngi def et que si épanouir étudiants yi ñu ngi seen mais malgré que aujourd'hui c'est la c'est nekk demi-finale moo waral tey massivement les étudiants sont venus pour supporter les Lions mais aussi pour participer pleinement à la culture incha allah. nga gis ay des joueurs de de qualité yoo xamante ni tey jii ce sont des internationaux yoo xamante ni seen club da fa ràññee. aujourd'hui Sénégal mu réussir à leur copier tous ensemble réunir ci benn sélection dirigée par depuis du début à la fin ñi ngi mëne match yi comme ni nga waxee. mais comme match bu dafa may spécificité comme tey jii demi-finale la et que étalon yi Burkina Faso je pense que li gën moom mooy jël ci fulla ak fayda ngir ni Sénégal voilà. ñu lay jaajëfal kàddu gi rafet na waaw merci beaucoup jaajëf waaw waaw waaw waaw. Paloma Cheikh Samba Dior ni na mo Serigne Touba lay ziar. maa ngi leen di ziar tey. seetaan nga premier mi-temps ba mu jeex. waaw seetaan naa noo ko jàngatee. bon en fait maa ngi nu ma gisee équipe nationale Sénégal par rapport ak yenn match yi ba premier match yi chaque match bu ñuy joué day am évolution quoi affaire moo ngi gën a dem kanam kon yaakaar naa nu ñu ko commencé premier mi-temps bi du ñu demee ak moom deuxième mi-temps bi. yàlla dinañu may ñi am ndam quoi ci kanam euh, Burkina Faso. gars yi gars yi yéen ñu toog bon arbitrage bi bon ah mais man. gisuma woon gëm penalty loolu moom première bi bu Cheikhou Kouyaté bi abi waroon nañu may foofu penalty quoi mais dernière bi moom boobu moom nekkul penalty franchement même nu ma nekkee bëggoon naa Sénégal mu dugal mais loolu moom gisuma mu nekk penalty quoi on se la vérité waaw. man yaakaar naa équipe bi bu baax man de bi laa ne man yaakaar naa si équipe bi Sénégal day indi coupe bi ren bi mooy suñu année waaw merci beaucoup. premier mi-temps bi baax na quoi en gis naa lu ma gis nii pour euh, day war a renforcer li nga xam ne mooy attaque bi. Ismaïla Sarr foofu mu ñëw quoi ndax Bamba Dieng baax na na ñëw quoi en fait ndax soxla nañ ko si biir terrain bi te gis nañ ne Moro moo manqué te une fois mu ñëw rek danañ gis beneen changement ndax Bamba Dieng baax na trop mais li muy garder bal bi daa bari te bal bi xam bal bi mu raté léegi bu defoon retrait rek euh, Cheikh Kouyaté dina ko dugal wala wala Sadio dugal ko ak quoi mais pour man pour man premier temps bi baax na bien sûr bien sûr foog deuxième temps bu ñëwee dina ko defal bagage bi nga xam ne moo ko man léegi lu manqué mooy bii bi te incha allah day ñëw léegi nii. si match bi mooy eh, joueurs yi nañ góorgóorlu si second second kii bi second mi-temps bi parce que premier mi-temps bi moom daa mel ni doxul quoi Bamba démarré nañ ko mais gisul quoi gisul. Euh, dañuy gaaw a def changement si euh, second mi-temps bi pour ñu gaaw a dugal bii quoi man loolu gis si match bi quoi. la. maaleykum salaam dellu ziar. ah premier mi bi gars yi joué nañ de juste que euh, ay quelques réglages dañuy réglé rek comme lu si mel ni si problème mu Bamba Dieng quoi Bamba Dieng boo gisuñu gisuñu Gana Gueye aussi yooyu taxawaay boo xoolee moo des boo xoolee ñoom ñaan ñooñu bu ñu leen gisoon si match bi peut-être premier mi-temps bi dinañ am benn bii boo xoolee. boo xoolee côté Sadio moo gën moo gën a évoluer ak ak ak Saliou Cissé moo gën a dox côté côté Gana ak ak ak Bouna Sarr quoi. parce que boo xoolee côté Bouna Sarr ak ak ak Bamba jeu bi dafa des foofu noonu comme Sadio engagement bu mu am engagement bu mu am di am capacité pour yóbbu bal bi boo xoolee Bamba amagul capacité boobu noonu. sama xalaat pour man Aliou Cissé tey Ismaïla Sarr la ñu si blessure la jóge moo am na capacité di yóbbu bal bi si kanam Bamba boo xoolee zéro deuxième mi-temps la ba si Marseille match yu mu joué deuxième mi-temps bu a la analyser si premier mi-temps amaana deuxième mi-temps bu Ismaïla Sarr ñëwee jeu bi dina gën a changé ñu gën a gisaat boo xoolee gisaguñ ko si premier mi ba tey. Brandt yi ah, bi première bi on peut dire que ne boo xoolee gardien moo bopp Cheikh Kouyaté mais deuxième bi moom dama analyser pour man yàpp na quoi pour man penalty am na mais arbitre ñooy décider doo si mën dara mooy loolu ah, ok Kakandé Kakandé grand ñoo ngi lay fay. gisee premier mi première mi-temps ah, moom gars yi joué nañ ko mooy loolu noonu yaa ma gën a xam parce que boo xoolee occasion yi am nañ ay occasion te arbitre bi boo xoolee soo xoolee ñun sax suñ joueur yi nañ ko si parce que dem nañ ñaari yoor VAR xool ne ndax ñun am nañ penalty yi équipe bi moo ngi joué damay wax ñu continuer si lancé bii quoi suñ continuer si lancé xel dalagum na mun na ñoo fubalee nii ko ñu continuer nii match bi mooy loolu noonu ñoo waragum nañ ñu a loo xam ne dal na suñ xel nañ dem si kanam rek loolu noonu lañ koy. jaajëf merci. Pablo. ci ginnaaw nañ def ginnaaw barrière yi léegi nañ toog nañ toog simile nañ toog simile nañ toog s'il vous plaît s'il vous plaît toog leen toog leen s'il vous plaît ñi ci ginnaaw comprendre leen gars yi ñi ci leen toog leen toog leen toog leen toog leen toog leen s'il vous plaît toog leen toog leen toog leen s'il vous plaît toog leen toog leen toog leen s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît toog leen toog leen bi mi ngi ñëw te moo gën a important. noo noo gisee équipe bi football tey football bi. ils ont joué peut fois du du ñu mu am ay failles mais ils ont joué ils ont fait l'essentiel. Ah, te loolu waaw vraiment ñu loolu loolu daal lañ ci bëgg jeex na. merci. grand noo gisee tey équipe nationale. non c'est extraordinaire. c'est extraordinaire vraiment on est émis c'est c'est extraordinaire c'est super sympa. Vraiment, on est très fiers, on est très fiers, on est très fiers. Et on sera toujours derrière les gagnants jusqu'à jusqu'à finale, Inch'Allah. on va remporter cette trophée tant attendue ici. Et on va le fêter à Djamnyadjo, Inch'Allah. Merci. Hein. Voilà, on est très fiers aujourd'hui, on est très émis. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est une chose, que ce soit le Cameroun ou bien l'Égypte, ça sera une romance. Si c'est le Cameroun, ça sera la romance de 2002. Et si c'est l'Égypte, ça sera la romance de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est le Maghreb à tout entier. On va le... on va on va aller battre quelque chose l'adversaire Inch'Allah kontaan nga de noo gisee équipe nationale tey équipe nationale bi mention spéciale euh, Aliou Cissé yaay suñu papa di suñu maam lépp loo classé baax na dédicace à Sadio Mané je t'aime kay taxuma gisee équipe nationale. kontaan rek wóor na yàlla kontaan suñu xol a seddee saa yi. instant yii moom mënuñoo wax dañuy ñaan yàlla rek yàlla mi am lépp di maye lépp mu may ñu final bi incha allah. tey tey ñoom Sadio Mané. en fait non joué nañ normalement franchement wax dëgg yàlla mais juste que ba ba ñëwaatee mi-temps moom taxawoon nañ tuuti heureusement si la bii bi si la ñee marqué seen bii sax mais sant yàlla alhamdulilah. lay wax si final bi. ah kontaan kontaan instant bi kontaan rek dañ mën a wax alhamdulilah. kontaan nga noo gisee neex rek kontaan barke Seydina Mouhamed. tey noo gisee Sadio Mané Bamba Dieng Ismaïla Sarr. xale yi dañoo fubal lu amul fenn def luñ mësul def. barke Mouhamed. lan wax si final bi. waaw final bi xanaa di ñaan yàlla ñu yóbbu ñu si jàmm ñu jël coupe bi indi ko Sénégal. bu nekkee Cameroun wala Égypte koo si am baax na Cameroun wala Égypte ko si am baax na ragaluñ loolu. ragaluñ leen. ragaloo Cameroun ragaluma Cameroun ragaluma Égypte. <laughs> di euh, waaw ak lii di Dakar Midi tey jii équipe nationale bu Sénégal dóor euh, dem final dóor Burkina Faso 3 avec la manière Bamba Dieng tamit dugal na si match bi waaw ñu jàkkaarloo ki nga xam ne moom Papa la si moom ñu nar a waxtaan ak moom si prestation kii di Bamba prestation équipe nationale. waaw salaamaaleykum euh, di nuyu seen site bi bu baax a baax wasaare wasaare di leen nuyu bu baax di leen remercier itam vraiment yéen a ngi jàpp ci événement yi. waaw yéen a ngi jàpp ci événement yi bu baax a baax a baax. yow nga bokk ak Bamba Dieng gis Bamba Dieng certain temps di def euh, ay effort di def ay waaw am mbégte contentement rek te xam ne bettu ma parce que Bamba Dieng ci Bamba Dieng ci famille football la juddoo ay baayam yëpp dañuy football peut-être papaam moo ci nekk inspecteur police papaam inspecteur police te sama frère la suñ ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay. depuis mu nekk tuut tànk la nekkoon jàmbaar mus bettuñu nag dañ ko dañ koy ñaanal gudd fan ak wër rek parce que dina gën a joxe lii parce que ci football ci suñu xol la nekk waaw. kon Bamba Dieng li muy def nii ngeen bett mënuñoo bett parce que ñu ko gënoon a mën magam a ngi fii Dakar Sacré Cœur Mbidou. ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay am na rakkam di fut magam beneen bu nekk frère am bu nekk euh, Diourbel di jouer nawetaan Tanor donc moom bokk na si ñu gën a tuuti ci famille bi. lii la yàlla dogal ñu ngi koy ñaanal rek wër gudd fan yàlla may ko carrière bu rafet daal ba mu jot ñoom Messi ñoom Cristiano man loolu laa koy ñaanal en tant que. père kon doon ñi wax euh, Bamba Dieng warul titulaire semence bi tey loo leen di wax. non kii la rek xam nga équipe nationale comme ni ñu koy waxee ñëpp si ay coach lañ quinze millions d' habitants yëpp dañuy coacher mais coach bi coach bi itam li ko li ko li li mu woolu lay def. Bamba Dieng tey jii bu demee bañ naan na titularisé ak bu mu titularisé bu demee bañ koy dugal muy titularisé loolu moo ko wone parce que euh, soixante-dixième minute dugg na ko fi nekk homme di match dugal bi donc tey buñ ko démarré loo tey c'est normal moom moo ko wane. waaw nan ngay gisee tey équipe nañu ni premier tour bi Sénégalais yi bëri dañ doon seen façon jouer ak seen ah, dugal. dugal presque ay 5 buts ay 3-1 3-1 ak 2-0 nan nga waaw euh, équipe buy gagné moom coupe à chaque fois nii lay demee boo rappelé woo ay Côte d'Ivoire ay Zambie nii lañ doon demee mën ay niil ay match niil ay défaite la ñuy am mais nii nii actuellement nii boo bëggee dëgg-dëgg Afrique moom Sénégal c'est le meilleur moo fi ëpp joueur moo fi gën a joueur. yaakaar nga ni équipe nationale na gagné kii di waa Cameroun wala Égypte. mën na ko da koy door score sax Sénégal xajul ci Sénégal xajul ci Cameroun mais nag match boobu yaa am problème parce que arbitre début boobu ba fin gis ngeen ne arbitre yi jàppale Cameroun dañ leen di jàppale mais luñ leen jàppale jàppale ci biir terrain bi ñun ñoo mën Cam ñoo mën Cameroun bu dee ci règlement football la ñoo leen mën parce que Cameroun ñoo leen ëpp ñoo leen ëpp ay qualité jour waaw di remercier waale nag euh, di saluer waale passage papam sama frère euh, Ameth Dieng di ko nuyu bu baax di ko ñaanal parce que moom it nit ku bëgg njaboot la boo demee këram ñu mu jur ak ñu mu jurul xamee woo leen ay frère am moo leen yor ba ñu toll nii ak ay sœuram ay doom mbaayam ñëpp mënoo cee xamee kenn kan moom kam la kan la bokkal ndey ak baay ñëpp la uuf kon bu demee tey jii bu am doom ju nekk équipe nationale ñun dañ koy ñaanal suñu doom la waaw. lan ngay ñu soutenir seen doom. seen doom parce que fii kenn ku ne sa doom ngay tiitaroo kenn ku ne sa doom ngay tiitaroo même du Diourbel la. ñuy wax ne dëkkul Diourbel yow da ngay firndeel ne Diourbel la dëkk. xamul lu tax ñu naan dëkkul Diourbel police la woon papam inspecteur police la woon. Euh, Pikine la nekkoon ñu ngi ko doon woowee Rick Hunter booy seet anciens yu nekk Pikine yu bëri xam nañu Luc Anteur Bamba Dieng Pikine la juddoo mais papam ak yaayam papaam papaam bi ko jur Diourbel la dëkk papa maam ay maamam Diourbel lañ dëkk waaw région de Diourbel lañ dëkk génnuñ Diourbel parce que euh, maamam bu jigéen mu ngi jógee euh, benn village bi ñuy wax ndànk ndànk seen fa la Tanor Dieng police la woon ancien police la donc moom famille yëpp Diourbel la Diourbel la juddoo fa dëkk. di ko ñaanal yàlla musal ko ci seytaane ci ndog làmmiñ ak euh, jëf yu bon yi gars yi defante xam équipe nationale ko xam xam ne dafa diis ñëw fi football gis toj tojaat yombul. donc ñu ngi koy ñaanal ku ko mën a jàppale ci ñaan nga jàppale ko ku ko mën a jàppale loo loo ko mën a jàppale rek nga jàppale ko waaw. parce que xale la demagul fenn. xale bu ndaw la. boo amee 21 naa ci la yem xale bu tuuti la day door a te mu ngi def résistance yàlla na ko cat seexlu yàlla na ko yàlla musal ci làmmiñ ak yeneen ak yeneen voilà ah Pape Moussa Faye. Moussa Faye étudiant nga wala. étudiant waaw. tey noo dundee ah, mais di xam ne li des moo gë moo moo gën am solo on est à quatre-vingt-dix minutes de notre objectif comme suñu comme ni ko président waxee woon soxlawuñ final coupe lañ soxla waaw te gis naa tey nag gars yi football nañ bu baax surtout premier mi bi malgré qu'on n'était pas bien mais géré nañ ko ba jëluñu bii euh, euh, deuxième mi bi. j'espère Aliou Cissé tenir na discours bi nga xam ne moom la waroon tenir muy sermonné na leen boo boo gisee ñi ñoo xa beneen xar kanam bi ñu indiwaat deuxième mi-temps nga gën a xam ne équipe bi am na lu ñu bëgg ils sont déterminés ils sont déterminés à aller chercher le sac final. ah. Bamba Dieng peut-être biñ ko tegee ci côté bi il n'était pas il ne retrouvait pas ses repères gisu doon ay repères am parce que moom foofu du poste am mais bi mu ñëwee bi ñëwee euh, ci axe bi mu ngi doon muy doon def ay ay très bons appels Ismaël Sarr aussi bi mu duggee on a senti que Sadio était libéré ñu parce que dañ doon marqué ci deux côtés yi de ce fait que day am beaucoup beaucoup plus de liberté mu ma ñu ñu mën a exploiter moo waral troisième bii wu oh, oh, bii wu bi. nan ngay nan ngay gisee taxawaayam. ci final bi. Sadio Mané ah taxawaayu Sadio Mané ñun mën nañu depuis le début de la compétition comme ni mu ko waxee ci premier interview il faut il faudra ah, ah, que le peuple soit patient ñu xaar parce que non seulement équipe bi amutoon amutoon préparation avec beaucoup de cas de Covid yi nga xam ne moo leen frappé woon dafa métti woon pour ñu produire jeu bi nga xam ne moom lañ leen doon xaar mais Sadio fi mu toll nii ci compétition yi montré montré que ne c'est un leader c'est le à chaque fois c'est celui qui donne la dernière passe euh, ou bien celui qui, euh, qui est à la finition. ah sama dernier moom mu ngi naan ñu concentré wu di woo peuple bi yëpp ñu euh, nekk derrière les lions pousser leen ñu dem jëli ku dem jëli suñu objectif parce que ñun lu ñu mën di def te jëluñu coupe bi ñun dañoo échec comme le président l'a si bien dit. merci ok merci. grand tur bi ak sant bi. oui man Mansour Ba laa tudd. non vraiment tey kontaan laa gis quoi équipe bi moom vraiment lu ma gis si moom depuis départ ba finition bi yëpp damaa gis seen taxawaay. gis football bu rafet vraiment lu ma gis tey depuis match keroog bi moom moom moom laa lecture ma xam ne tey classement bu ma soxloon match bii Aliou Cissé defal na ma ko surtout avec Bamba Dieng partant tey bu mu def. man soo gisee tey ji ma wax lépp lépp classement bu mag fu ma gën neexee mooy Bamba fu mu fu mu fu mu tey fu mu partant fu mu nekkee partant waaw. nu mu gisee prestation. nu mu nu mu footballee. nu mu footballee daf ma neex parce que lii dafa waroon nekk au début sax au début de la compétition waaye parce que Bamba c'est un élément te tey jii tey jii dafa nekk koo xam ne dama ko suivre au Marseille xam nga mu naa ko suivre au Marseille mais lu ma gis moom loolu moo tax depuis depuis début compétition bi dama bëggoon mu mu mu parte lan nga leen di conseil lu ma leen di conseil nooy nañu dal nañu dal nañu dal ñu ak seen conscience parce que coupe bi lii lu ko waral coupe bi dafa ñëw Sénégal ba pare dafa ñëw Sénégal ba pare man musuma am confiance bu mu amee confiance année bi parce que depuis début de bi nu mu gisee dëkk bi nu mu taree te dëkk bi nu mu coow ci équipe yëpp ma xam ne lii tey lii mooy ndam bu ñu jik waaw. kaddu gi rafet na merci. Assane Dioum. noo gisee équipe nationale. waaw équipe nationale moom nga gisee moom ah zéro faute fi nga ko foofu la équipe boo ko mënee door ko door yu métti door yu saf yu yàgg yu soxor amul yërëm góor boo ko mënee bu ko yërëm ñafal wax ak moom bul jël bul jël Oh, Sadio Mané. da kaa bëgg Sadio Mané dama kaa bëgg Sadio Mané boo gisee vidéo bi xam ne bëgg naa la. Waly Waly Waly Waly wala équipe nationale bi Waly yow la ñuy xaar. loo gisee Queen Biz Queen Biz dig na dig na Sénégal. Eh, Queen Biz moo ñu jëkk. Queen Biz boo waree boo waree da ngaa war a wéy dama am gàcce boo wéyul da ngaa war a wéy. Queen wayal Queen wayal Queen wayal boo wayal da ngaa war a wéy boo wayul da ngaa war a wéy Queen wayal Queen wayal waaw Queen wayal Queen wayal yéen day na da mel bëgg naa ko jëkkër man. ah bëgg ko maa lay wax si kanam Sénégal yëpp bëgg naa la jëkkër pare naa. Queen bis takk ma soo ma takkee ma seel la sey bu rëy. takk ma Queen bis takk ma ma seel la sey bu rëy laaju ma dara. maa ngi njëkk a wax a wax maa a wax. saa daanaan la. wallaahi lazim salaamaaleykum ñu ngi leen sant di leen gërëm. fii Sénégal wax na gagne na une finale ne se joue pas ça se Ah, final bi dañ koy gagné dañ koy gagné maanaam xoolal dafa jot ñu indi ko fii Sénégal billaahi ñun dañoo soxla Sénégal euh, dañoo soxla final ñun doomu ñun doomu Sénégal dañoo war a jël ndam li wër 14 raisons yi yeewi leen ñu yeewi leen ñu Aliou Cissé dafa jot ñu askan Aliou Cissé maa lay sant di la gërëm Aliou Cissé jooyal naa la fu lu la ñuy wax la ko mën a jàppal rek gaynde nga dina baax jërëjëf Aliou jërëjëf Aliou merci Aliou jaajëf Aliou ok ok jaajëf maam maam Caam ak Ibrahima Mbaye jàpp taw baay rek dina baax